jeunesse bi ànd ak ñun ànd ak ñun ci jikko yu rafet ànd ak ñun ci koom ànd ak ñun ci lépp li nga xam ni moom mooy defar dinañ fexe ba euh, ànd ba Ziguinchor nekk ci jàmm ngeen baal ñu àq wa salaam jërë jëf soleil, c'est le soleil, c'est le soleil, c'est le soleil, mbokk yi ñu continuer S'il vous plaît, coupez vos portables, s'il vous plaît. Coupez vos portables, s'il vous plaît. mérite moom war na des quoi dañ toog xaar quoi